asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokk julli yi bokk tali bi rawata ñi nga xam ne may seen jëwriñ ci kër Sëriñ Tuubaa ak kër Cheikh Abdou dafa am lu am solo loo xam ne néséri Sëriñ Tuubaa la woon ñu ñaan suñu borom nga may ko te mooy tabaxal ko daara yoo xam ne day dindi réer waaye day dindi coono comme ni mu ko ba banaa leen xudóo su ma dak sax bihaa yusul asaabu jeex loolu kaw la loolu mu ñaan nag sëñ Abdou Lahad amoon pas-pasu lëggeel ko sëñ Tuubaa ba tàmbali ko ba nga ni defoon na ci yooyu ñaar téeméer million bàyyi lu ko lu ko ci jox itam mu defal la ko ci kon lay yoon kenn dara comme nag moom mooy suñ bunt ci sëñ Tuubaa te noonu daan doxe ñu duñ laaj kenn dara danoo bëgg képp koo xam ne ci noonu la bokk loo man nga def ko ci ndax dañ ci ñaari taxawaay taxawaayu sëñ Tuubaa bi nga xam ne nesiréem lam jum yéene woon ak tàmbali ko sëñ sëñ Muntaxaa nag am pas-pasob àggale yéene joojee yu sëñ Tuubaa jooje ak Seex Abdou Lahad joojee ñi xam nag maay seen bunt ci sëñ Tuubaa maay seen bunt ci sëñ Abdou ma leen koy yëgal ngir bëgg kenn ku nga def ci loo mën sëñ Abdou ko defal sëñ Tuubaa loo mën defal loo mënul ku ko defal loo mënul mu defal lu jàmm kon nag ñun ñëpp nañ ànd ci liggéey boobu nga xam ne ni sëriñ sëñ Tuubaa te ni mu ko waxee ni lay amee day daara joo xam ne day dindi ak réer ndax soo ci jaaree da am xam-xam ba xam ni kenn dut la mën a nax te da nga xam fi nga teg say tànk ba doo réer te boo ci jàngee ba am diplôme boo génnee liggéey da nga teqali ko coono tey teqali ko ëllëg ndax da am loo jagale sa àdduna waaye mën nga caa liggéey itam loo jagale sa àllaaxira kon nag maa ngi ci woon ñëpp bëgg ñu ànd ko def ko te kenn bañ ci yemal liggéey sëñ Tuubaa la liggéey sëñ Abdu Lahad la sëñ Muntaxa ak am am nisri àggale liggéey eh, eh, bëgg-bëggu sëñ Tuubaa ak bëgg-bëggu sëñ Abdu ma ci woo ñëpp tey ñaan ñu ànd ko moom ba mu ko bisimilahi rahmaan àggale ko alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi ñaanal ñëpp nag suñu borom dafa leen gudd fan dafa leen wér dafa leen sandu dari dafa leen sax ci jub ak ngërëmul sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa